waaye ku am ñi ma xam ñu nekk sa gannaaw doo juum ci làmb kon nag euh, dañuy daal di rek commencer waxtaan bi euh, di la gërëm Doudou di gërëm la maison mère RTS di gërëm chaîne bi nga xam ne tey jii euh, gàcc nga làmb moom moo démarré lépp ba tey jii làmb egg fi mu egg ba mu ci nekk wéetoon na lool ci àll bi waaye tey gisal caméra yi nu ñu toll. di nuyu ñëpp di nuyu la presse parce que lu ñu gën soxla mooy presse bi ñëw jël affiche bi. parce que affiche bi dañ ko jël jagleel ko population jagleel ko amateurs yi parce que c'est la demande social demande amateurs yi la donc ñun ñii Leewtoo di ñëw si làmb ji nekkaat ci donc lu ñu ñu mën a def mooy tey xool affiche bi nga xam ne amateurs yi bëgg na ñu indi ko lii bokk na si affiche yi ndax balaa ñu fiy jógee dañ joxe exclusivité beneen affiche boo xam ne xëy na amateurs yi bëgg nañ ko ñoom ñëpp yàlla def na mu mu sotti tey waaw donc loolu laa moom di nuyu Boy Niang di nuyu manager am di nuyu famille Boy Niang di nuyu waa am supporter Boy Niang di nuyu aussi Tafatine bi ak manager ak famille ak aussi supporter Tafatine di nuyu aussi suñu équipe Leewtoo bi bi nga xam ne ñoom depuis presque un an ñu ngi liggéey pour que incha allah bu ñu ñëwaatee ñu def yoo xam ne Sénégal dañ ko bëgg mais Pape du ma la bàyyi bu doy waar bii muy combat jànq réew mi yëpp naan combat jànq du am nga indi lu doomu Pikine bi doomu Bawol bi noo def ba tëgg combat bi Pape moo yëm ñëpp. waaw làmb ji foog naa ñu def li ñu si defagum ni am nañ si expérience parce que am nañ si tolof tolof yu bëri yoo xam ne dañu si génn analyser jàng jàngat ko jël ko def loo capitaliser comme positif si ñun. Mm-hmm. ndax ñu si gis am nañ si tolof tolof ak Modou nekk suñu frère. Mm-hmm. te ba léegi dara changé suñu relation. te yooyu yëpp dañ koy ay jaar jaar yoo xam ne dañ ko capitaliser mu jaroon ñu tey ñu gën a dugaat si làmb ji donc am si expérience. aussi li nga affiche yi nga wax nii tey bu ñu ko doxalee aussi am nañ coordinateur boo xam ne lépp moom la. mi mhm. Max Margane. Max waaw donc lépp luñ fu teg affice rek moom moo ko dox. waaw donc moom aussi ñu koy remercier di ko féliciter ne koo xam ne vraiment nitu làmb la. mooy mooy Max Margane moom mooy. kooku mooy làmb la kooku Sénégal yëpp wax na ko. mooy Sa Thiès Garga aussi taxaw na eh, eh, eh. donc loolu aussi exclusivité la boo xam ne ñu représenté Garga Sa Thiès ñu ngi fi. et je pense que loolu aussi taxaw na incha allah d'ici semaine prochaine ñu matérialiser mais man sama mooy dama xaw a jaaxle parce que dama tiit nii combat yi gën a jafe ngeen taxawal Sa Thiès Garga nu mu taxawee nu ngeen waxtaanee. Max Max Max ma Max. mais Max. non muus muus Max gën waaw Max moom mais Magat. mais Max Mbargaan man li ma yëm mooy yi gën a jafe nga tëkk. Thialis nee na waa Leewtoo yëpp dañu jël seen xalaat seen lépp jox la. Max nooy taxawale combat yi. waa xam nga ginnaaw ba ñu nuyoo assistance bi fi ne yëpp. Uh-huh. Eh, sant yàlla julli ci yonent bi gërëm suñu ñaari waay di ñaan jàmm ci réew mi. xam nga problème mooy léewtoo bi mu ñëwee. Uh-huh. waxoon na objectif am. dëgg la xëccoowuñu dara mais bàyyiwuñu benn mbër bàyyiwuñu benn combat. Uh-huh. kon combat bu neex askan wi rek léewtoo dina ko démarché. su jiboo dinañ ko taxawal defe naa bi ñu doog a dugg si loolu la ñu waxoon tey nagul fàtte ne 2017 2018 boobu ngay wax waaw Leewtoo journée bu mu tëgg vingt écrits ñoo koy bëre de dëgg la doo gis ñaari écrits bokk ci benn journée mm-hmm. loolu moo lay wane ne ñoom dañu bëgg lamb ji au moins li ëpp ci mbari yi di bëri mm-hmm. moo tax nag gis nañ ne Garga ak euh, Sa Thiès fii la ñu waxtaanee ak ñoom ndax gis nañ ne amateurs yi bëgg nañ ko bëgg nañ ko wax jot nañ ñaari mbër yi jot nañ seen i ménager jiwoo nañoo ak ñoom incha allah semaine bu ci yàlla àndee eh, dinañ ko finaliser incha